naam yéeneem kat mooy mu demoon joŋante fee ci Barça waaye xam ngeen ne Barça kat dañoo nekkee jafe-jafe ba tax na dañuy moytu li ngeen mooy règle fair play financier daal seen ndod en majeure partie des yi nga xam dañ leen dalal xam ngeen bu baax kat joueurs yi ay agent libre lañ mën na ci lim ko ci mën ni Kessié wala boog Lewandowski naam jënd na yenn ci joueurs ku ci mën ni Waymaker tu bikar bola yitu neng kolol mena club bi nga xamne moy Al na mën na ne kat jaar na ci suuf ka tek ko yu takku fay ke lene razuri ter de Milan moy ka fay nañ 23 millions d'euros ci milieu croate bobé kon jappale nak mom dar na fa xati ben contrat bu 3 ans e ka ci 3 ans yoyé e, dar nañ ka fay kopal yu takku moy ka 100 millions d'euros tardegula comme ni ngeen ko waxee won mom meen moy le jeune turc bi nga ko xaraña ci li amal mi ngi jongante ci fene Fenerbahçe comme ni ko fësiroo ci xibaar nag club yu maga mak ñi ngi daw ci ginaaw man nañ ci lu ci man ni Real de Madrid AC Milan bi jekku na pour dalal ko waye Barça kat ñom us ñi ci course bi pour lever li ngeen mooy clause libératoire bi tax mu bawoo fee ci Turquie ndax kat mën naa ne cherul noonu 17,5 millions d'euros la ko ñom dinañ xëccu pour mëna dalal लेजेंड तुर्की एक बारसा बकुंजम फवेशन मेरकतो एक kinga xamne nak moy pare xo ñom ñam yag na top ci ginaaw ci ginaaw dina ñamal waxtaan wai jour bu real bi kat mëna ne projet sportif bi mom lañ ko présenter ak na nga xamne mom la bëgg doxalé fofé Cede Masia kuru que moy kat boy ko ben yon kon mom ka da fay mujju lank ne kat du kon ginaaw gi kat bañam bobé momit moy dali pare Barça amal na benn plan B ki nga xam ne mooy Ori Romeo ma ngay doxal fee ci Girona pour rappel jaar na fee ci Barcelone ci atum 2004 ginnaaw gi loolee mu jëwante ci Barça B bi mu dem fee ci Chelsea en 2011 mu signé fa waaye mën naa ne doxalu fa wane lu ci ayib jaar Sugar dem fee ci Southampton kon finalement kan mu desandi fee ci Girona kon Barça kan ñi ngi def le tout kat voilà mu delluwaat foofii mën a remplacer ki nga xam ne mooy Sergio Busquets. et que comme ailier droit nag woon nañ lool aussi le joueur de Rayo Valladolid bi nga xam ne mooy france ne daal uyoo kon kat li ngeen mooy close kat ñu ngi koy xayma ci 20 millions d'euros kon mën naa ne kat koppar yooyu mën na jàppandi pour Barcelone waaye pour joueur yooyu ñoom nag faaw ñu libéré faaw ñu libéré autant pour li ngeen mooy wàllu masse salariale. se manya banya dal sen menyadal ki tu Kingan boy kisi nak darne ka jai dugal keleb ay kopal taku nak keleb binar al al helal de Koulibaly pare nañ pour fay Barcelona 20 millions d'euros ñu mëne jaay le joueur ivoirien bi mën naa ne waxtaan ñu koy xul ci xuus bu baax a baax que buñ moyul dina wutali fee ci championnat saoudien bi ñu ndar ka fa fay benn salaire annuel de 10 millions d'euros par an li soxal seen ñaari défenseur yi mooy que Clément Lenglet xam ngeen bu baax Tottenham mi ngi hésité da ngay wéyle wala bokk day delluwaat waaye Barça nak li bëgg mooy ñu fay ne 25 millions d'euros Tottenham japp nañ loolee ka dafa seet bu bëggee mën nañ leen fay 5 ci défenseur français bi kon waxtaane ñu koy wéyle Umtiti bi nga xam ne Barça moo ko abaloon fee ci Lecce mu wane fa boppam bu baax a baax le champion du monde ci atum 2018 kon moom jàpp leen mom ak barsa ñi ngi ci yoonu kat dakkal li nga moy contrat bi ñaari pàcc yoy dinañ toog ci taabal xool ba xam nan la ngi taxawé bu ko défé kat mu xol club bi nga xamné moko doy mu dem signé ek eh, kat lim nañ club bu ci mani olympique de lyon ek eh, jàpp leen bayern ak paris saint germain ma lañ déggo comme ni nga waxé woon loolee antoine voilà ce jeudi mom mi nga xamné moy lucas buy sonn ko ci marka tuli Tolina foofee ca France pour jàll li nga may visi mooy am bu lepp yembe bu sëkk ci kayit xati ben contrat bu juromi at waye nak wa Paris fay nañ waa Bayern 47 millions d'euros. akim ziet bi nga xam ne waa Chelsea ngi dafay jéego pour man nah, ko jay ndax voilà compter tuñ ci mom do moom doomu koy bobé ci mercato bi ñu génnoon moy que mercato d'hivernal ndaroon no utali fee ci Paris Saint-Germain mu raté ko de tout près mu delluwaat fee Chelsea. Al Nassr mi ngi woon ci ginnaaw pour mën ko dalal ndar fay koppar takku xam ngeen ne laata jour de xarim contrat dafay def li nga xam mooy visite médicale mooy que faaw ñu faaw saytu li nga xam ne mooy yaramam. doomu marocain bi nag liñ fësal ci xibaar mooy que kat dafa échoué kat li ngeen mooy visite médicale am pour ainsi kat du mën a doxal fii ci Arabie Saoudite kon moom mi ngi toujours en contrat avec les Blues dina delluwaat foofee. bu fekkee transfert boobee du am doomu brésilien bi nga mooy Roberto Firmino mu bawoo fee ci Liverpool en tant qu'agent libre utali na fee ci Arabie Saoudite ak club bu Edouard Mendy bi nga mooy Al Ahly ak contrat boobee dafay dem ba juin 2026 le joueur bi nga xam ne mooy Seamus Coleman dafay wéyle avec Everton de Gana Gueye ndax xaatimaan na contrat ba 2024 Mason Mount bawoon na fii Chelsea ko tolli fii ci Manchester United kon mujj nañ amal déggoo ek waxtaani kat mën naa ne métti woon na lool ek yàggoon na doomu angale boobee nag bu ñu soxni ko ci Fabrizio Romano xaatim na fa benn contrat ba 2028 eka teg nañ ci table bi nag koppa yu takk mooy que 55 millions d'euros 5 yi bonus sax buñ ko boolee muy 60 voilà lépp mën a yemb doomu angale bi utali ci club bu Erik ten Hag moom mi nga xam ne aussi mooy Eritier xat te woon na lool benn portier ndax mën naa ne dafa De Gea ni mu taxawee kat lëndëm na ëlëm na leen wóolu ndax dina wéyal ak ñoom li nga mujjee proposé voilà mucculoo ayib moom moo fa lu muy fayeku waaye li nga ko proposé kat voilà dafa ndaw lool moom meen mooy le portier espagnol. bu moyul kat bu fa desendee dina am wujju ndax kii nga xam ne mooy Onana yàgg na nag ñu ngi ci ginnaawam. ñom nak paré nañ nak pour def benn proposition mais officiel officielugul nak pour rappel buñ soxni ko ci Fabrizio Romano mooy ko lu jege 50 millions d'euros waaye Inter kat ñoom ñi ngi laaj 55 millions d'euros ko koppar yooyee dina len may kat ñu amal mercato bu muccu ayep et pourquoi pas ñu gadd ki nga moy Lukaku bi nga xamné ne amul benn delu wat fi ci Chelsea ginnaw gi bañu amé ay jafé jafé et moom gis na bu baax kat club bi nga xamné moy Inter voilà dëppoo ak nim bëgg doxalee légui lérna William Saliba mom da fay prolonger li nga xamné moy contrat am waaye guñ nak app bi kon ginnaaw gi buñ buñ jéxalé li ngeen moy seeni vacances voilà dina sëgg ci kay khatim ko club bu turki bir moy Besiktas ñom kan ñi ngi fay jéggo pour mëna a app ki kii ngeen moy Coutinho ek nak li ngeen moy option d'achat nak nag voilà ñi koy xeyma ci 8 millions d'euros espagnol bi nga xam moy Pau Torres utali na club bu Unai Emery bi bu ñu ci Fabrizio Romano Tottenham baye ba tey défenseur burkinabé bi nga ne moy Edmo Tapsoba ñi kan ñi ngi seqalay waxtaan ak Leverkusen ek moom mbir moy Harry Kane club mbir moy Tottenham ñom ñoom kat nee paru ñu ben yoon pour jaay ko ci mercato d'été bi képp ku def offre ak nu mënti mel ci seeni wax voilà xam ngeen ne seen façon de parler dañ koy dàq mais buñ tegee koppar yu takku club yu bari na lañ daan def rien que pour ko defee club bi di kat di dafay offre offre bu gaa moo gën a supérieur ñu mën ko libérer waaye nag li ñu wax mooy que Bayern kat yitte woon nañ ko lool et que defoon nañ sa benn offre bu 70 millions d'euros loolee kat dafa ndaw ci doomu anglais bi mondial 2026 mu dara dalal 48 équipe pour rappel Canada Mexique États-Unis ñoo boole seen doole pour dara xew moomee pour dem ci nag faaw nga jaar ci li nga ne mooy qualification yi kon format au niveau Afrique fësaloon nañ ko mooy que kat voilà am nañ léegi kat 9 équipe yi nga xam ne mën nañ valider seen ticket directement dixième bi dafay jaar li nga xam ne moom mooy barrage intercontinental tirage bi dinañ ko amal sa 12 juillet. fee ca Cotonou pour ñu amal neuf groupes kon fësal nañ li nga xam ne mooy chapeau yi ginnaaw bi ñu fësalee classement bu FIFA bi si lañuy soxla pour amal loole ci chapeau E bi nag mën nañ ci lim les champions d'Afrique Sénégal Maroc Algérie Égypte Nigéria Cameroun Mali Côte d'Ivoire ñi bokk chapeau duñ mën a joxante chapeau D bi mën nañ fa lim Burkina Faso Ghana Afrique du Sud Cap-Vert Guinée voilà Zambie Gabon Guinée équatoriale. ainsi de suite voilà comme ni nga waxee ci classement bi kon kat sapo bu ci ne dina ci tànn équipe boo ko defee kat ñu former benn groupe pour rappel ay groupe de six équipes lay doon ki jël pay moom mooy validé kem directement et que les deux meilleurs ci groupe bi ñoom kat dinañ amal jawante ka nga xam ne moo ci am ndam kon kookee mooy amal lii nga xam ne mooy tournoi intercontinental pour mën a am chance su qualifié ci mondial 2026 et que première journée bi nag pour rappel dinañ ko amal entre 13 ak 21 novembre 2023. Abdallah Sima kon club bi mooy Brighton abali na ko fee ca Glasgow club boobu bébé nañoo bëgg a renforcer seen attaque pour qualifier li nga xam ne mooy Ligue des champions dañuy jàll ci barrage bi. kon jàpp leen abal boobee sans option la nag mooy que bu jeexee comme le cas fee ca Angers dina delluwaat fee ca Brighton. senegal gi nag ba mu defee lu am solo ci li nga xam ne mooy phase de groupe ci biir Choco yi format bi nag lenn la ka nga xam ne moo jël premier mooy joŋante final kon Gall si la bee moo yoroon Sénégal moom moo si qualifié na Maroc ci jeu africain yi c'était le cas 2019 ñoo leen daanoon. final boobee nag jàpp nañ ko sa vendredi à partir de 16h30 GMT. kon gars yi xibaar yi foofee lañ koy yemale di leen ñaanal jàmm ak dikk saako ci yéen ba beneen yoon sur Sport 221.